long time Sénégal Papa Dia. macha allah macha allah macha allah alhamdulilah Sénégal Ndiaye tey sama xol daa gën a sedd ndax démb fii lañ ko defee woon tey ñu ñëwaat fii mais li ma ci gën a neex mooy toujours da ngay may gis sama côté ma denn xale bu jongama bu jekk boobu Thiam Babel Dama Thiam ma koy nuyu ndax ñàkk a toog ak moom wóorul bu fa jógee di gërëm waa Sénégal Ndiaye ndax tey lu ñu doon yéen ñu ko def ndax tey bu du woon yéen li ñu doon ñu duñ ko doon ndax béccum lir bu neexee ndey jaa téye newoon naa leen luy naaw a neex a sànni ci biir 2STV bi ak lan tey ñu sànneeku ba fan yaa ma gën a xam Sophie. Oh, aussi plaza. ngi biir si plaza di ko waxtaanee di ko joome di ko jiiñ waaye di sant yàlla bu baax a baax a baax di santaat yàlla di santaat yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ndax di jàkkaarloog ay caméraman ñu liggéey ba ci yàgg teg. keesu caméra yu bees yi dajji ko sa day gën a neex non ñun bokk ñoo ak yeneen télé yi ñun chaque fin du mois on fait des achats <laughs> des petits achats on jette les anciens mu yaa ma gën a xam petit achat foofu laay jaaree gërëm papa Alaaji Njaay mu baax mi nga xam ne mooy jàmbaar ba lii mën a taxaw waaye yaay Maram Njaay kenn demul nga des waaye yaay Njaay Samb mu Alaaji Mama Njaay ajaratu soda mama mu alaaji mama Ndiaye Abdou Ndiaye sama mas moomu Cheikh Anta Ndiaye bëggee gërëm sant ak ngërëm ñeel na la waaye tey tey ngeen kontaan ndax dañ fee dawal ndaanaan sëñ Saliou Thiam am lu muy pare incha allah damay bàyyi xale Ceece Mbere ak xale ma Marama Toccu foofa mel ni dege papa mel ni dege damay daal di dugg si ndànk daal di lay fël dëgg du neex nuyu la njaay jaata njaay nee naa la yow di bokk ak yow plateau dafa may neex kenn di yow naanaan nga ci mim réew rotation nga ma laal de rotation ah, neexul ba neexul mais jantal bu pata jantal bu pata moo baax instant rotation nga ma laal mais kontaan naa ci yow njaay du ñuy du nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy safoo la 2STV yi saa su nekk ñu jàkkaarloog ñoom ci li nga xam ne mooy mbégte ak bànneex waaye ci émission bi nga xam ne mooy émission na neex comme chaque soir du lundi et jeudi tàmm ngeen ko ci heure bu baax bi nga xam ni tubaarkàlla fi ñu toll nii dañoo jël li nga xam ne mooy émission bi génnee ko kër ga waaye fas yéene ko décentraliser tey fi ñu nekk nag mooy Sea Plaza te ku ne Sea Plaza wax ni centre commercial te ne centre commercial wax li nga xam ne mooy boutique yu baax yi rawatina euh, Friday Black Friday bi nga xam ni waa Si Plaza ñu ngi koy def depuis le 21 ba tey jii nii euh, muy wëy. lu leen jar fukk def nañ ko juróom. lu leen jar juróom ñaar di dërëm. xanaa neex xanaa neex instant yi moo tax nag sa gars yi war a ñëw nag. dëgg neex ñëpp ñëw. ñu soxla rek ñëwal ci ñun 2S. boo bëggee dëgg-dëgg du ñu Plaza rek ah, fépp la dem xam nga la 2STV amul sens interdit fenn waaye tubaarkàlla tey dañoo toog ñu daajul ñu ay caméra yu bees tàkk moo tax mën a naayi ni daal di rafet dëgg du deex mais tey ñu nar fee dalal nga xam ne mooy ndaanaan boo nee ndaanaan rek wax taalibe Serigne Saliou wax taalibe Serigne waaye wax taalibe Cheikh Béthio Thioune moom nga xam ne ñu ngi koy jooy te noppeekuñu kooku mooy Serigne Saliou Thiam ah moom bu wayee dafa war a way bu dafa war a way mu nekk ndaanaan nekk un nekk ci yoonam di waajal waajal un grand événement incha allah ci décembre après dina ñëw ñu gën ci xuus waa mais Thiam Babel Demba Thiam. dañuy ki nga xam ni mooy borom immersion Vaille Games. waaw. réalité virtuelle bi ñu doon wax Demba. waaw fa nga doon jooyee day day yegg ci sa jooy yi ak fa nga doon yuuxoo. boo bëggee dégg-dégg Demba si plaza wàcc na ndax man ba ma jooyee ba wàcc sama ay technicien guddi gi bañ paree dañu dem. waaw daal di kafoore waaye waaye pamaay dafa pamaay dafa miir <laughs> daal di daanu. moomo nee na moom du yég waaye Grégoire nee na moom du fooyee genre jeu yi dëgg du neex mais ku ci bëgg rek da nga ñëw si a ah au rez-de-chaussée fii nga ñëw boo laajtee immersion bi fu mu nekkee ñu won la ko le à 2000 francs mu nekk benn jeu boo xam ni da nga mel ni yaa ngi à l'extérieur di ko dund muy neex nañu ñëw découvrir lool aussi Plaza Ndiaye nuyu naa. macha allah macha allah Sofia gën naa bëgg ci yow sa costume baax na sa lacoste baax na xala pare xala jongoma daf may neex waaye Cheikh Ibrahima Ndiaye ak doomu ndayam ah ñang baalo maa ngi lay ziar borom Touba di wax ni sa bés bi ñu jëm ca Touba incha allah sang bi su ma paree fii di nga xam ni papa Ndiaye sëñ Ibrahima Ndiaye ku ma booleel yëfam dinaa ko téye ni ma ko war a téye waaye nag sama téer boobu nga xamante ni moo nekk ca asalam Grand Yoff duudu maa ngi lay bëggee ak sama gaay sama rakk ma xuja xam ngeen ni loolu du yomb ndax gaay yi xam ngeen ni tey la te si plaza bu ñu fi ñëwee affaire yi day gën a xumb gën a neex gis ngeen rappeurs yooyu ak musique beeg yooyu fii ngi mel ni fii ngi mel ni dege damaa bëgg ngeen pare te xam ne doxantu fi yombul yow mi yor sa boutique boo wootee commercial bu 2S fii ñu toog sa buntu police la ñuy ñëw buntu place ñuy ñëw yow mi jàkkaarloog ñun boo ñu woowee ngay jaay téléphone ngay jaay montre ngay jaay rajo ngay jaay yére ngay jaay dàll ak loo mën a jaay rek loo xamante ni mën naa jàll ci tele boo ñu woowoo ci commercial ñu jàkkaarloo ak yow. ñii nga xam ne ñoo nekk si plaza yor boutique de marque yu mag yi ñoom tamit ñu ngi leen di invité di leen woo ci li nga xam ne mooy émission na neex ndax dañoo wàññi njëg yi fin lañ nekk fin du fin d'année lañ nekk dëgg du neex 2STV yi dafay def ay xéewalam ndax askan macha allah alhamdulilah gis ngeen boobu bastung la mu def neex na waaye yéen ci biir yéen ci biir macha allah yéen ci biir ñoo ngi ci bi tey si si plaza di leen waxtaane di leen bëggee di leen wax ni ngeen préparé wu ndax affaire bi neex na ñi ñaa ngi ñëw di def shopping ndax xam ngeen ni Noël mooy annoncé te Noël bu annoncé yéen xam ngeen ni 2S du ci bàyyeeg yéen xool leen gars yi ñu ngi doon ko ñëw waaye li neex ba neex ba neex mooy tey sama ndaanaan daa ñëw sama ndaanaan daa ñëw ñu naan ko sëñ Saliou Thiam moom Sophia dama koy bàyyeeg ganam mu waxtaan ak moom waaye di bëggee sama doom bébé Fa ak bébé Awa di gërëm sa yaay Ndiaye Samb ak sëñ Ngañ Samb Sofia saganangoo sëñ Saliou sëñ Saliou nuyu nañ la xam ne mooy Serigne Saliou Thiam ñu gën ko xam ci li nga xam ne mooy Zikroullah ah, moom muy taalibe Cheikh Béthio ñu ràññee ko ci macha allah mu nekk ndaw waaye di ci bay waaram ba ñëpp ràññee rawatina ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio moom mi nga xam ne ñu ngi koy jooyta noppeeguñ mu nekk doomam euh, wax dëgg yàlla euh, bay ci waaram ba tey jii nii euh, marqué na li nga xam ne mooy emprunteur ci kuréelu Cantakun tey nag Serigne Saliou caam lañ fi dalal ñu bàyyi ko rek mu nuyoog téléspectateurs yi nga xam ne ñoo koy seetaan salaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum maa ngi nuyu wa àdduna waaye di nuyu ñëpp rek euh, di ñaanalaat Serigne Béthio di ñaanalaat Serigne Béthio yërmandeem ji yàlla na gën a sax si ñun maa ngi nuyu ñëpp waaye di nuyu ñu ma bokkal plateau bi ku ci mel ne Papa maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar waaye di la wax sa yóbbante ci Serigne Samba borom Touba di nit ku baax di wax ci yow lu rafet Euh, bu ma jógee ci loolu di nuyu Sofia Thiam euh, moom du ma wax ci moom ndax sama diggante ma ak moom. àdduna sépp xam nañ ko. muy nit ku baax yaatu bëgg nit. kon euh, dama lay ñaanal yow suñu borom dafa la jàmm. yokk see xéewal. waaye di ñaanal Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée mu yàgg fi loolu te gën a wér di nuyu sama mbokk cantaakoon yëpp bàyyi ma kenn maa ngi siyaar ñëpp. ndeysaan sëñ Saliou maa ngi lay bëggee man tamit di kontaan suñu Serigne boobu ndax moom waxuma la rek li may defal ak li may ñaanal ak li may déy waaye daf naa bëggal boppam ndax ki nga xamante ni da lay ñaanal ba pare di la defal teraanga ndeysaan mel ni Serigne eh, Ibrahima Ndiaye xarit borom Touba ndeysaan waaye tey eh, dafa am lu rëy looy waajal Sénégal di ko yëngu xale yi di ñawlu ñii di jóge Europe di ñëw ñii di ko préparé mais lan la loolu bruit boobu mooy dégg ak coow li waaw muy le 12 décembre ku ne xam na nii yàlla dafa dogal ni euh, du mën a sax c'est la première fois waaw ndax yàgg nañ ko def waaw te suñ borom dafa dogal ni Euh, nit bu nekkee dara di ko def day ñaan yàlla muy gën a avancé. waaw suñu biñ ko daan biñ ko daan def. am na fu ñu ko daan defee. waaw 1500 places la muy cinéma aw Pikine. mais yow da nga am ñu def ko gisee fermé. dama yàgg am fit. waaw fa jugee. Euh, def ko beneen salle xajuñu fa mu jug ñu koy def plein dem ba plein air bi présentable. teel micro bu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ànd ak moom dem Sorano. muy loolu mais mbooloo moom foo ko jëlee. waaw mooy mooy mooy mooy baax rek. bi baax. baax rek moo tax ma am ko ndax euh, damay faral di dégg ñu ne nit kenn du ko loué chaise mën nga ko loué mais nit ñi boo la wanee mbaax rek ñu teg la foo xamante ne teguñu fa kenn. Mhm. dëgg lan moo tax Serigne Saliou Thiam tey kuréelu cantaakun mu bari li nga xam ne mooy ay sikkarkat mais mu parvenir à ce que mu jiitu nekk jeune parce dëgg yàlla nga am ñoo fa fekk mais nga liggéey ba jiitu ba ñëpp ràññee la ci lan mooy secret Serigne Saliou Thiam. waaw sama secret mooy gëm-gëm ak bëgg surtout. xam nga sama baax man sëñ Béthio ko seede. Sofia ndeysaan cheikh bi moo ne ma yow da ngaa baax wax ma ko ñetti yoon. ndeysaan loolu doy ko ma jël ma taf ma ci dëndam. ndeysaan na ma yow sama sën nga da ngaa baax. ndeysaan mbaax rek. Mhm. ak ndimbalam ndax maa mu jee way. dëgg la maa ngi maa ngi fàttaliku bi may tàmbalee way 2010 2011 la 2016 ma def album def ñaari clip defaat naa beneen album boo xamante ne huit titres la ak événement yoo xamante ne mi ngi ci kanam ak yi weesu jàpp naa ne man maa mujjee ñëw mhm. mais. Euh, képp kuy jël maanaam référence ci man nga koy jaaree. foofu laa jaaree nag nuyu Omaro mu Cheikh Béthio sa doomu nday waaw sama ah, mag ak euh, sëñ Saliou Thioune bu Gueule Tapée hmm. jëwriñ di ziar ñëpp ak Sidi bu sama frère mi nga xamante ni moom sëñ euh, Cheikh Béthio rek lay bëggee rawatina na sëñ Ngañ mi nga xamante ni daa bokk ki doomam waaye lan moo tax tey senegal gépp nit ñi yennu sa bés ndax da nga leen di yëg ak safoo wala ak faale wala ak oyof lan moo war a sénégalais ku mel ni Sofia ak ñeneen jël sa bi nag def ko ñu seen yëf. waaw loolu mën naa ni yëg ci la bokk. ndax mooy li ma la waxoon sànq rek. xam nga bëgg dafa foor te boo deful dara kenn du la bëgg. dëgg la boo deful dara kenn du la bëgg waaye nag bu la nit ñi bëggee. yow yaa yow yow yaay def li yokk seen cofeel ci ñoom. ab taalibe ab taalibe sax nag nekk ab taalibe teg ci. waaw mooy. waaw mooy maam <laughs> maanaam naturel. xam na yi fi méttiwul. dëgg la. fii nu fu nit mel nit ñee ko def. waa jantal ma gis xanaa gisoo xanaa gisoo ni ma jantalee. <laughs> <laughs> waaw mais Aïcha lan lañ mën a xaar ci li nga xam ne mooy le 12 décembre fële ca Sorano ñun lan lañ mën a xaar ci Serigne Saliou Thiam ci spectacle ci way ak yeneen ak yeneen yu ñu mën a xaar ci Serigne Saliou lan la quoi. waaw euh, parce que en fait affiche yi daal na publicité bi daal na. bruit bi moom bruit bi moom dafa rëy Sénégal ñëpp ñu ngi waaj le 12 décembre. alxuraan ñëpp ñu ngi koy waajal li ñu mën a xaar bari na. Mhm. waaye dinaa ci ñamal dinaa ci ñamal tuuti. Mhm. Euh, benn bi ci topp mooy maanaam sañse. sañse waaw caam Euh, may profité ah. fi eh, ma santoo Thiam toogal. fi ma <laughs> fi ma fi ma génn nii. Ndiaye Thiam mosoo ko dégg. <laughs> Sofia fi ma génn nii sa xarit sa doomu nday Seydou borom caaro yi. borom caaro yi maa ngi koy nuyu. moom moo ma génn fii. waa bi bëgg bëggal naa ci Ndiaye. yéen ñaar yi incha allah rabi jeudi jeudi moo leen di solal. ak soxo waaw. ak soxo soxo sama doomu nday ñëpp ñu nduróole ko. Seydou. ay Seydou jeudi boo ñëw. borom caaro yi Baba Diagne ma nga nekk da yàq de ma nga nekk mbeddu cinéma moo leen di solal da ko waajal jeudi bi ñëw ni ñëpp moo leen di solal euh, bu ñu bu ñu maanaam bu ñu jógee ci loolu spectacle ndax man damay yëngal son et lumière waaw yàlla dafa dogal ni euh, damaa nekk doomu géwél mm-hmm. du ma ne nag damaa mën a way waaye suñ borom boo defee defee dara da nga koy sant te Serigne Sall nee na kuy sant ak kuy tiitaru kenn mënu a xàmmee. Euh, du nag damay tiitaru. Mhm. waaye xam naa ne man damay yëngal. man xam naa loolu caam nga sant te gay ne nga nag. damay sañse lu rafet. waaw way lu neex. ba pare damaa baax damay way lu neex it damaa neex baax. damaa baax dafa baax. damaa baax suñ bi suñ <laughs> ma ko wax. suñ becco moo ma da ngaa baax wax ma ko ñetti yoon topp ma na ma yow sama sëñ nga da ngaa baax ndeysaan barki seexul xadim léegi da may wax ñan ak ñan woo ma may la sa clip bi waaw ñi may woo nag bari na ñi may woo bari na loolu euh, maa ngi nuyu monsieur le maire Issakha Diop waaw démb guddi rek mi ngi may woo euh, di ma wax lu di ma wax lu baax sëriñ Basirou Ka waaw Basirou Ka maa ngi koy nuyu baax di jëwriñ waaw jëwriñu Cheikh Béthio waaye di taalibe Seydina Thioune moom woon na ma léegi na ma naa la may kaar yu bari ak waa Tiwaawan Pël gars yi pare nañ waa Kaolack ñi ngi waajal la mhm. waa Touba mhm. waa Touba ñi ngi waajal euh, ku ci mel ne waa Diourbel ñoom Serigne Saliou Diourbel ak Tata Mané Thioune mu Serigne kooku sama yaay la baax ji euh, Tata Mané kooku sama yaay la suñu yaay la sax laay wax mhm. muy nit ku baax moom ñi ngi waajal gars yi ñi ngi may def signal ne sa clip pare na ah. ñu mën ko xool waa Sénégal gën a xam si nga yëpp ah, ah. ñu doog a ñëwaat gars yi damay seeti Serigne Saliou caam ngeen gis li muy def ni mu neexeek ni mu safee ak ni mu koy yëngalee. man maa ngi sax ci biir bis ba. ayca bu leen neexee let's go. yeesaa yeesaa yeesaa alhamdulilah gis ngeen mu ngi noonu bégal nañ leen kontaan ngeen te seen xol sedd na waaye sunu gan dama koy laajaat loo xamante ni yombul ndax grand théâtre ni mu mel pardon. ak euh, mbooloom. lu la fa yóbbu lan moo tax nga am fit boobu engagement boobu. waaw euh, xam nga liñ naan ay mbapat. waaw li mbëri naan mbapat. ak baax ci mbër. mën naa ne damaa mbapat. donc maa suñu borom boole maak ay nit yoo xamante ne bu ma leen woon ba bu ma leen woon ba Paris ñu fekk ma fa waaw loolu moo tax ma jug mais sénégalais yi xaarante bi ñuy xaarante tey fee moom duñ la may dara dañu tëj rido yi waaw loolu dama ciy profité di ñaan sama sama fans yi ak soppe yi nañ ñëpp teel a ñëw nañ ñëpp teel a ñëw 18h mu fekk fa ñëpp ndax minuit pile dañu arrêté ñëw doo dugg de bu loolu weesoo nag maa ngi nuyu waa Canada euh, Lamine borom kanadaa dafa jënd doy yu bari may ma ko mhm. ñoom Aline Doy ñoom Seydina waaye sama maam sama xarit euh, Serigne Ibou Kouaté mu jënd VIP yu bari ba pare may ko ay doomam na leen dem leen xam nga gars yi réservation bi mën naa ñi ñi maanaam ñi réservé bee ñëpp bu ñu ñëwee sant rek sant rek damay ñaan nag ñu teel ñëw jël ci seen i bee. allah nga xamante ne bu jour ba amul taxaw di jënd bee da ngay ñëw rek dugg. dina am ay surprise aussi. waaw dina am ay surprise dina am ay spectacle yoo xamante ne. man fa toj ma. waaw ah, yéen yéen yow yaa ngi ci biir. <laughs> dinaa àndaale ñeneen. Uh-huh. waaw di gërëm ñëpp rek li may mooy ay ay kàddu cant lay doon. du nuyu waa caaro yi foo ma dëkk nga xamante ne aw ma ñu du ak ñoom. ndeysaan ñu ñu bàyyi lépp mobilisé wu mm-hmm. pare pour jàppale ma xam maa ngi leen nuyu baax groupe WhatsApp yi nga xamante ne moom lañ doxal ku ci mel ne Aïssatou Dabo Cheikh Ibra ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ñoom Fatou Fall maa ngi nuyu ñëpp waaye di souhaité anniversaire sama xarit muy Kéba Badiane kooku kenn la ci man uh-huh. maa ngi koy souhaité waaye du nuyu tamit soxna Nday ñu soppe bu nekk Touba moom it mi ngi seetaan doomu Nday Tafa Fall du nuyu sama soppe yëpp rek uh-huh. du nuyu Serigne Samba maa ngi nuyu ñëpp uh-huh. waaw du nuyu képp koo xamante ne rek di leen wax ni leen nag la set incha allah rabbi maa ngi rond-point Massoudi ak sama benn doom avant première avant première le 21 décembre maa ngi croisement Cheikh Béthio. incha allah mais en tout cas bu mag bi mooy le 12 décembre. le 12 jeex na tàkk jaajëfal nañ la Serigne Saliou Thiam di la ñaanal yàlla sa bis bii nga dëgmal yàlla loon borom def ci xéewal. def ci ndam ba euh, fi ñu nii déwén sax nga woote li nga xam ne mooy grand théâtre pourquoi pas parce que baax nga am nga yitte te mën nga way te nit moom ni ñu koy xoolee rek mooy ab xolam bu rafet te loolu moom boo ko amee rek loo song lu nekk rek daan jàmm yàlla moom li Sofia wax maa fàttali incha allah jël naa grand théâtre ah. le 4 avril eh. ndeysaan ah loolu suñu bis lay doon papa papa papa ah xam na ni am na eh, bés Thiam Babel Demba Thiam lañ koy tuddee eh. sama ñeeño bi nga xamante ni ak jeeg bi li ngay duggee man Mass Gueye parel non man xam naa la oui ma man xam naa la <laughs> maa ngi nuyu Serigne Mor Talla Thiala Fall waaw bu ma paree fii këram laa jëm dem fa moom recevoir grand théâtre boobu li ngay duggee man maa koy jox ah? waaw eh, kii yee Thiam Teranga waay waay cim kon la 4 avril Papa Ndiaye Thioub du yomb kontaan naa ci yow léegi gars yi li ñuy def mooy bëggee leen exclusivité bi am ngeen ko tey waaye ceet damaa gisagul nag sama xarit borom jeudi borom jeudi envoyé na ma message nee na mi ngi noonu di gaare di droite pour ñëw dugg si waaye démb aji maas li mu def fi démb waaye def na ko tiga dégg naa wax nga waxam moomam dëkk bi borom ban tëy tëy tëy waaye man soxo laa gisagul soxo waa na xam na fu mu nekk nii balaa may seet soxo balaa may seet soxo damay dem rési clip mhm. rési may leen ma clip ma wëri soxo ndax dégg naa mi ngi fi yor ay valisam di ku rek macha allah alhamdulilah ah sëñ Saliou Thiam bésam ba dana rëy waaye sant ak ngërëm dafa ñeel moor mu moor mu sëriñ Saliou Mor Diop mu sëriñ Saliou Mor Diop mu sëriñ Saliou jënd na léegi bolo gu tikkee ngir jàppale ko ndax ku ne xam na ni bés du tuuti borom lay tollool waaye nag li mu def nii peccum liir bu ne bu neexee nday jaa tëgg ca mbay eh, téye ca mbagg ya waaye di gërëm ménagère u sëñ Saliou Thiam ak rakam ji mu àndal ak staff yi mu àndal yëpp waaye yow mi jënd ticket yi te dëkk ci ginnaaw raay moo jóg mu sëriñ Saliou bëggee nañ la Sofia ayca ba tey ñu ngi fi nga xam ne mooy si plaza oh. soxo fi ñu toll nii man dama dama yaakaar mais daa mel ni xale bee may seen tànk yëla may seen dëgg du neex sama rakk ji la mais sama rakk ji. ak a sob est-ce que sama moom laa see muy wàcc nii ci ascenseur bi nii nekk daal 2STV moom foo nekk dalay lay. loxo si plaza da la réer ah sama rakk jaa ngi mel ni Dubaay ak ay lampam. baa xam nga ni 2STV bi foo mënti nekk rek dañ lay jëli wuy lii. Eh, soxoo ngi ne la sama rakk jaa ngi temp temp. non soxoo di ñëw dëgg du neex. xale baa ngi mel ni Dubaay ak ay lampam wuy lii. waaw yow Mbete Maria Kare waaw maa bëgg kii yow. waaw wuy lii oh. <laughs> namatuma Beyoncé. eh Amore what's up man. waa kii xanaa Maria Carey la. <laughs> kii xanaa wala Beyoncé. mais rakk ji foo jugee nii fan nga jugee bay wàcc nii di tepp. loolu nga koy wax sax du wax ji yow yaboo ma yow. yow yaboo kan ma la koy teel mooy lan. yow eh. lu la neex. <laughs> waaw wulli day perturbé kat dama ne yow maa yeb wala lan fan nga nekkoon ci biir kii bi nii ci óol bi ci ban mois lañ nekk. ñu ci mois dugg décembre. ci ban mois lañ nekk Ndiaye. fin novembre. jaay yaa ngi nelaw. <laughs> ci décembre lañuy ñuy dugg te ah, dañuy waajal programme yu rëy biir. yu riis waaw. te xam nga ni solu waaw. greffage bu baax. yére bu baax dàll yu baax. adduna lay wër. ndax animatrice yi tubaar fakal la macha allah ñu ngi waaj lu rëy. ci décembre mhm. xaar leen ko du yomb du yomb man maa leen ko wax. bonsoir chers fidèles téléspectateurs ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal di am mbégte ak contentement bu mag retrouver waat leen encore une fois ci télé bu mag bi nga xamante ne mooy la 2STV en compagnie de Papa Ndiaye Thiou Thiou Thiou <laughs> national et national ah ak sama mag ji nga xamante ne mooy Sophia Thiam Thiam Babel Demba Thiam nee naa la yow euh, Issa Laye mooy sa mag Laye Makhtar borom anniversaire bu <laughs> riche bi xam nga ni loolu du yomb <laughs> di nuyu caméra anniversaire bi de ni mu de ëpp na. ëpp na yaay ñëwul teg naa ay mbis yu ma ñëw mu ne ma gerte caaf laa am. <laughs> mais lii. mais Ndiaye mën nga yàq der ah. mais xoolal yàq yaay Baba Diagne mais waxuma loolu yow time bi ma la joxoon heure bi nga war a liggéey. Mm. lan nga doon def ci biir si plaza bi. shopping rek waaw di shopping rek. waaw di dajale bagage yi affaire yu baax yi di waaj lu rëy ci décembre. am nga sama rakk ji daa bëgg ànd ci télé mag bi 2STV xam nga nit ñi moom la ñu taamu. waaw programme sur jàmm de. ay ca sama rakk ji moom xam nga tubaarkàlla moom bu deful dara sax day daal di benn. yàlla ah, dogal moom yàlla yàlla def ci moom taar da gudd neex laaw la cat sama xaali xii na ah. sama cat ak sama cat la première fois au Sénégal macha allah sama rakk ji waaye Ndiaye di rappeler fidèle téléspectateur yi rek ñu ngi fii ci Sea Plaza waaye sam samedi dafa am lu rëy lu fiy xew. incha allah concert parce que ñi ngi dëgg ma li nga xam ne mooy mois de fête. macha allah mois de cadeau mois de divertissement. waaye mois boo xam ni képp ku euh, nit rek war nga ko mën a fête parce que fin d'année la ñu wax. te si plaza mi ngi fi accueillir samedi ay naanaan yoo xam ni ay samba pesi ay dudu fee dee vidéos ak ñeneen ak ñeneen takkat kat gratuite la concert bi am na ñeneen surprise yoo xam ni ñu ngi leen fi xaar mais ku ci bëgg ñëw rek lenn rek nga indi bic ngay indi cahier équerre wala compas loo mënti indi rek ci yoon na nekk fourniture rek parce que waa si plaza dañuy collecté ay dons yoo xam ne dañ koy jox xale yi nga xam ni euh, c'est des démunis te loolu je pense que Sénégal lañ nekk yàgg nañ di dox ci li nga xam ne mooy mbirum social kuy ñëw rek nga indi bic cahier équerre wala dal nga mën a dugg ci li nga xam ne mooy concert bi la ma doon wax léegi borom kii bi waaw euh, responsable bi waaw borom responsable bi nee na ma Papa Ndiaye bëgg naa nga ñëw g ci indaale groupe bi may woo yooyu ñoom ma xujja Momo Dieng dinaa ànd ak moom andi ko dinaa andi Pape Diouf dinaa andi ñeneen ak ñeneen waaye man dinaa andi sama bopp. ndax li ma def ak Aïda Samb jàppale xale yooyu andi big jàppale seetaan Samba Posi Momo Dieng Papa Ndiaye Diouf Pape Diouf. loolu mënut a ñàkk ñun ñëpp dinañ ñëw yëngal leen waaye ma xuja pareel gang bi ñu ñëw yëngal ba mbaax mais soxo waaw Ndiaye xam dama la cee nangoon samedi moom mbaa yaa ngi fi waaye samedi maa ngi fi comme ni ko Sofia waxee rek def nañ li nga xamante ne daf ñu war parce que ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñëpp benn lañ dëgg la tey bu ñu jàppee ci combat bi dañ ci war a jàpp parce que xale wu tey mooy doon magu ëllëg. dëgg te xale moomin la gëm naa ni que buñ ci jàppee rek. ëllëg na baax sinon xale yi sinon dinañ ver la. waru woon judd at boobu nee naa la Sofia dama la ko audio. dama teel a judd waru woon judd. Sofia. Sofia dama la wax lu garaaw démb waaye gëmoo ma. nee naa la 1960 laa waroon génn <laughs> mais malheureusement la ko yàlla dogal. waaye jëmm ji nii jëmm ji nii ci kaw 99 la mais au fond ci biir. waaw 1960 yow loolu war nga ko xam. yaay loolu gëmoo. ak ma koo gëm man ma xam naa ne xale ak dara. kii laa bëgg. xale ak dara. waaw <laughs> ah, loolu beneen mère bu ne sa biir yàlla. mooy caat télé bi hmm. <laughs> yow nag comprendre nga lépp. def jongo ma def ay mbir. mais yi ñoo la namoon. Hmm. gis nga rek c'est la 2STV nee naa la 2 ku ci nekk da ngay solo. ngay reetaan sa xol day féex. Ah. parce que luñ la indi mooy spécial c'est la famille ñëpp booloo nekk ci jàmm animatrice yi animateurs yi journaliste yi. ñëpp benn la. ba pare télé jeunesse teg ci. merci beaucoup déterminé et dynamique. mais mm. ba neexul waaye jamono jii na neex mi ngi tukkal àdduna bi. dëgg la ndax waxuma la 17h sax mais xam nga ni toute la journée maanaam matin bi ba minuit sénégalais yi duñu bàyyi. dëgg la ndax nañ ñun fi ñuy wokk foofay xasan. waaw. te gars yi nee nañ delloo ko sa loxo. kon wokkal da nga naan ma kon Ndiaye. wokkal wokkal kon fi ñu wokk foofoo xasan. kon Ndiaye wokkal. ma delloo fa sama loxo. te gars xam ngeen ne luy naaw ne neex moo tax ñu ngi fii ci biir si Plaza di leen wax ni toujours dañ leen di bëggal di topp leen neex ak kan 2STV ak Papa Ndiaye Thiou Soxo bébé a ah, Aji Mas Gueye ah, waaw waaw a ah, ah ak Amina jeeg bi ak kan yaa ma gën yaa ma gën a xam non ol bi du yombee noonu non <laughs> du yomb du yomb du yomb nee naa la dañoo déplacé région bi déplacé lépp ñëw fii xam nga loolu ñun ñoo lu la tey sunu yaay ak sunu papa dañoo dajji caméra yu bees tàq. ñoo barke yonent bi lay la xëy ñun. Ndiaye jaar na <laughs> Ndiaye. riis waay. waaw waaw ndekete micro ni ma koy teewee nii <laughs> léegi géwél la nag. <laughs> waaye nag dama lay yëgal lenn. wuyu ma eh xam nga ni na neex jamono jii. Uh-huh. moom la sénégalais yi ne mooy number one nañ gën a góorlu gën a def bagaas waaye nag nga ni lan ngay. Ndiaye. waaw fële mi ngi toj de. dawal ku ma jaar sama fooy dawal dawal waa Ndiaye doxalal doxalal doxalal sama rakk ji dama koo bëgg parce que dafay bëgg di pétti doxalal doxalal <laughs> dana toj ci biti mais Ndiaye. wax dëgg yàlla ñi ngi ànd ak ki nga xam ne mooy sunu euh, sponsor leader. Aquaterra saa su nekk daf ñu gunge ci li nga xam ne mooy émission na neex te je pense que tey nekk na loo xam ne mënuñu dem sans moom moom it mënul dem sans ñun. loolu mooy aquaterra eau pure légère et ozonée. eau eh, eh. digestive ah ayca soxna. dimanche que duñ ko bàyyi rek dëgg du neex mu daal di wëyal li nga xam ni mooy na neex bi rek ci soir bi. daa di def lu ko neex dëgg du dama ne. waaw dama ne yéen may dégg. dib moo woote dama bëgg ngeen ñëw ñu dugg xool lan moo fi xew. waaw ayca kon doxalal moo ngi noonu doxalal doxalal ba mu neex let's go. ayca topp leen ko topp leen ko mais ba tey yéen a ngi ci aquaterra. Uh-huh. leen ak soxo. mu wan leen li xew fii xam ngeen ni fii neex na xumb na ànd leen ak seen i doom te téye leen doxantu ñëw bëggal leen defal leen cadeau mhm. waaw dafa leen kado ndax nawel lañ wax xëy na sax ñun macha allah ku ne xam na ni tam xarit mooy kii jullit yi waaye année bi calendrier yeeg yëpp tubaab bi waaw non benn la mais ku nekk ak niñ koy dañ koy waxee rek ni ko kilifa yi waxee mhm. ñun loolu mooy sunu at bu at bu at bu bees mhm. waaw loolu mooy sunu at bu bees ñu ngi ci calendrier beeg yaa ma gën a xam loolu mënut a ñàkk ñu xooli soxor dialogue islamo loolu mooy Sénégal ñun ñëpp benn lañ bu ñuy fête tam xarit dañu tibbal ñi nga xam ne mooy sunu mbokk mhm. chrétien yi waaye bu ñuy fête li nga xam ni mooy fin d'année ñoom aussi dañuy invité ci seen ay fête di waaj a jot dama wut ay 14 xarit yu <laughs> mais macha allah waaye bu tabaski jubsee ma xuloog ñëpp déet ëpp naa joxe yàpp ah day ndaw mbote ngay dagg di bañ a maye rek <laughs> bañ a maye kay loolu mooy leer waa xam ngeen Aquaterra la ñuy àndal di ko bége <laughs> ay ayca ayca macha allah mhm. soxu bébé ngi noonu di dem waaye Mamadou Yatta Saay mu baax mi nga xam ni bërki dem moo Njaay la anniversaire am macha allah dund bonheur prospérité santé réussite totale. ñu ngi la koy ñaanal. Mhm. ak sa soxna Daado. yàlla na seen jàmm yàgg ak njaboot gu barkeel ca kaw ca kanam. Ndiaye euh, fi ñu toll nii nag comme dañ nekk ci li nga xam ne mooy euh, début du mois de décembre. Mhm. je pense que tey ñu ngi invité parents yëpp wala chéri yëpp jëkkër yeeg jabar yeeg ñu ñëw fi nga xam ne mooy si plaza. waa ñu bàyyi bi ak iñaan <laughs> avec wàññi nañ wàññi nañ yëpp di leen invité à que ñu ñëw offrir li nga xam ne mooy cadeau de fin d'année parce que ñun étant jeune suñu papa yeeg suñu yaay dañu daan jëndal cadeau ñu daan. ànd xam nga ku ma ñëwee. ah xam nga ku ma ñëwee. koo ñëwee Moussa Gueye. Euh, joxe na cadeau ba pare da ngaa ñëwee cadeau man ma xam la. cadeau nga ñëwee. cadeau laa ñëwee. nee naa ko waaye damay bàyyi mu génn ma dugg oje lépp. <laughs> cadeau baa ngi sur place moom du laa la cat ci moom. ayca soxna yaa ci biti doxalal doxalal. Eh, soxo. waaw ayca let's go. go go go doxalal. Mhm. doxalal. baby boy. test micro test. doxalal soxo. test waaw comme ni ko waxee rek dugg naa ci concert bi. génneel naa leen rappeur bu mag muy Baxaw Dabrens. sama rakam ngoog Kaay tey da ngay jàll en direct ci 2STV ñëw rek jàppale suñu bopp nga xamante ne mooy. tey damaa bëgg nga wax ma euh, di def séance d'écoute am donc dénk ñu yenn liggéey yi ñu ñëw taxaw jàppale ko liggéey si et comme que ngénte la rek ñu ñëw lekk ci laax bi après ñu xam kan lay tuddee doom bi ku ne def waaw bu ma jógee ci loolu baxaw dafa nekk ki nga xamante dafa doy baxaw yaa ngi ci rappeurs yi baxaw yaa ngi ci mbalaxmaan yi baxaw yaa ngi ci fecckat yi baxaw yaa ngi ci dugikat yi ñii di rap baxaw tey naka nga def am link boobu yëpp ak artiste yëpp àdduna moom boo fi nekkee ah am xol bu sell yéen a sa morom yéene jàmm ñëpp euh, li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp yàlla mooy def nit ñi dañuy am envie liggéey ak yow parce que xam nañu lépp li ñu ci def yàlla moo tax nga koy def donc man tëjulu ma sama bopp kenn ku gis kanamu baxaw la ngeen di gis jàmm ak salaam donc nit laa boo xamante ne yàlla moom mu ubbil opportunité boobu yàlla mooy def ma amal connexion bu doy waar ak nit ñi donc ma ko doolee sant rek. waaye gis nañ ni tamit baxaw rabul kase mi ngi jàppale artistes yi mbalaxmaan yi tey daf leen di tëggal ku ci mel ni Viviane. gëm naa ni ci sa ginnaaw la nekk. Viviane maa nekk ci ginnaawam de. non Viviane mi ngi sa ginnaaw parce que bu ñu xoolee li mu mujjee def fële nga xamante ne mooy Pullman. yaa nekkoon ci ginnaaw yaa nekkoon ci ginnaaw wax ma nu mu demee nu mu demee. nekk nu mu demee. parce que Paxaw yaa ngi bind. ay idée rek yaa ngi bind. son yu bëri yaa koy bind. moo moo am ay idée boppam rek. dafa nekk son yu bëri yaa koy bind bul na bëtu Paxaw wax ma. wax ma ma xam moom sama xarit la Sénégal yëpp xam nañ sama relation ak moom sama xarit la et puis mu nekk système bu xamante ne wax dëgg yàlla kanamam jàmm rek la ciy gis. ak chaque fois lu muy def daf may woo comme lu mm-hmm. dib def dama baxaw bëgg naa nga ñëw ñu liggéey si du gratuit nag de daf may fay ma liggéey mu fay ma ku nekk gañ ci wàllam et mu jeex mu nekk nit bi nga xamante ne dafa am confiance ci man te lépp lu muy def rek daf ma ciy dugal. donc yaa ngi jàkkaarloog 2STV nii en direct. sama waa kër la fii. lan sama waa kër la fii. fii wax 2S. 2 maa ngi ñëw. 2S ngay wax de waaw comme ni ma leen ko waxee rek ah ni ma leen ko waxee rek taala borom américain lay doxalee dëgg du neex ñu ngi koy jaajëfal bu baax mais Ndiaye tey dañ fi invité ki nga xam ne mooy Bouba Dombaaw te boo nee Bouba Dombaaw wax américain sénégalais dëgg du neex xale bi nga xam ne mooy toj statut yi di toj li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi mais Bouba Dombaaw Bouba Dombaaw Ndiaye doo ko passé micro. tuuti rek non waxuma la micro mais dama koy dama koy jox how you doing my friend you alright? yeah I'm writing I'm Gara Lakin Bruce the mais macha allah Sofia tey di nga gaañu. <laughs> sama mbokk Gambien yi di ngeen kontaan tey because I have. I uh-huh. want my friend here. Mm-hmm. to play game. What what what what's Peter Mbow? wat Peter eh, Mbow? Yeah, Dembow is a knockout. <laughs> eh bul ñu napp. mais nan la ñuy waxee dëmm ci angale loolu jàngagu nga ko mais dëmm nu ñu ko waxee ci angale. Tamba. waaw waaw Papa Ndiaye Thiou nuñ koy waxee en anglais la ko. Papa Ndiaye yow. Sophia Cecembere. Sophia Cecembere yow. woo yaay. <laughs> what's your what's your name what's your name. my name is Damba Bouba. waaw en fait Bouba euh, lan mooy sa inspiration par rapport ak yow napp nga sénégalais yi sonal nga sénégalais ci li nga xam ne mooy. sa ay vidéo yéen a si biir sol. buuba sa tubay bi nga képp tam lan la buuba dëmbaw. buuba jaket yi nga sol man man man sedd bi bu gi nga maa ngi xam fan nga teg yooyu ngir yàlla kan ma la ko yónnee. non loolu c'est sama propre idée la quoi. ndeysaan sama propre idée la sama propre idée la parce que les choses me viennent naturellement comme ni ma toogee fii quoi. ndeysaan ça euh, ak Wilson sa rakk ju baax dàll bu baax. wuyu ma dàll bu dul camembert dall bu baax bu dul yàq tànk. da ngay dem seet. ndeysaan waaw kenn du moom de. yeah xam nga léegi les choses me viennent naturellement damay am envie tey sol benn musóor musóor laay sol anglais ça vient naturellement du anglais sama anglais la. sa anglais la anglais is dambaaw. sa it sa anglais dambaaw la. Sénégal dañ tàmm boo ñëwee ak sa style rek da ngay gis keneen ku lay toppandoo da ngay mais léegi. gaañu lu ma def ma rek ko mun Sénégal. waaw ah, waaw waaw même pas une semaine 36 cas. man rek maa ko fi def. yaa ko def dëgg la bu ba dama la nëbb man su ma yewoo. ma sonn ma abaa nooy seret laay njëkk seetaan parce que ak ak ak ak jaw keccub. naturellement parce que a nekk nit ñoo xamante ni. kaf ngeen xam kaf. en fait Ndiaye moom moom dafa làkkatu woon parce que dafa ñëw rek imposer li nga xam ne mooy boppam. en fait même bu dul loolu sax man sama tur dafa dem avant internet. waaw bu ma nekkoon sama koñ foo wax buubaa da ngay génn quoi. tur dafa dem avant internet. léegi nag si deret bi la nekk quoi. Mm. naturellement eh, buuba wax ma sérieusement jëngal jëngal yi nga xam ne kenn amatu ko ak jaget yow fan nga dem ba lijjanti ko. mais tamit. touch my colways. waaw waaw xoolal ba. sa kepp nag. sa kepp and girl. sama doom nday borom Angleterre laay faal xanaa tey kontaan nga. because is the Peter Mbow is here now to my friend. Ah! <laughs> like as my hand bro. neexul ma neexul waaye tey am nañ problème. waaye 2STV na neex fu la lépp na xëy buba spécial dama lay invité waa télé ba ndax xam nga ni euh, fi nekk nii àdduna bi ku bëgg a siiw 2STV ngay ñëw noo gisee lan lañ mën a xaar ci buba dambo bam dambaw ci ay projet te que sa tante bi dafa dëgër trop déjà maa ngi waajal euh, am naa cinq vidéo quatre vidéo yi war génn am na bu jot yoo xam ne encore day xam nga YouTube bi buba dëmbaaw la ah. Instagram bi buba dëmbaaw mm-hmm. Facebook buba dëmbaaw c'est quoi le secret de Bouba Damba parce que da nga euh. ñëw def ay vidéo automatiquement def clip vidéo non pour mën a lancer wane dama bëgg genre dindi stress nit ñi tu vois parce que y a des gens ñoo xam ne ñi ngi Canada fu ne ma la ñuy seetaan succès bi daf ma bett xaw ma woon dina yegg si fii au fait yàggoon naa def vidéo yi parce que dafa naturel en fait c'est ça que sénégalais loolu lañ bëgg du ma def dara. y' mais loo ñu mën a wax ci 2STV ci anglais de Mbao. yeah 2STV is back again 2STV is like in Mbour. like a stack in Mbour. Papa Ndiaye Thiou and girl. Soufia de Mbao. in eh, ci biti. thank a good day ci biti de Mbao. let's Mbawin you Mbaw Mbawin in the <laughs> ayca nañu génnaat ci biti ci hardcore bi ah soxna mi ngi ci biti moom la ñu am en live fële ayca bu baaxee soxna mu daal di jël rek ñu daal di continuer tey ñu ngi biir si plaza nee naa la am di damay gis kenn rek daal koy poñe indi ko sama biir plateau laaj ko naka lay waajee décembre ah, la 2STV nañ la ñëw nga yi affaire yi bi tey naka nga koy waajee en tant que fans bi jënd album bi rek cons ko xam na rek Dip moom c'est le actuellement c'est le roi du rap moom waaw c'est le roi moom actuellement moom. Dip yaa dégg loolu. kilim la déclaré rëy na de. Dip actuellement c'est le roi du rap loo ah, loo ñeme ñàkk instant yi moo xaal moo fi buzz. Ah, non non waaye waaye. saa waay moom nee na du rab moom nee na du rab waaye ku ma jotaat rek dama koy jëlaat indi ko ci sama biir plate eh kawaay gaay ñëwal maa ngi la gis ngay rab nooy waajee décembre bi dama bëgg nga rabal ma yow da nga bëgg a nekk rabal eh, saa waay dama la xàmmee de saa eh, waay rabal ma eh, yow doo raxu dib boobu non dama raxu dib de rabal ma son bi rabal ma son bi ah, loo ñeme loo ñeme waaw saa yow caméra moom nee du rab am di moom nee du rab waaye faw ma am ku may rabal tey ci plateau bi dama bëgg a jël rek mu rabal ma dama bëgg a jël rek mu rabal ma may pro ci loo nekk ci jàmm nooy dundee concert yee kontaan rek ak jàmm nga xam ne bëgg di ci kaw ci kanam rek amul leneen waaw yaram yëngatu de bu baax baax yëngagul yëngagul sax tey naka lee ngeen di waajalee décembre bi ak album euh, dip bi nga xamante ne mi ngi ban pare naa ko depuis album bi avant album bi génn laa pare di pare pare naa ko yàgg. tey décembre bi noo koy waaj. wàcc rek pëgg ko dóor mu daanu amul leneen. am di ñii pare nañ de. am di ñii pare nañ de. am di ñii pare nañ. am di ñii pare nañ. dama bëgg na ambiance baa ngi noonu ak 2STV ak na neex Sofia Thiam ak Papa ak 2STV xam ngeen ni day gën a neex day gën a xumb day gën a day gën a dagan rek waaye du yomb Sofia. Sofia affaire yi moom tey tey du yomb de. Mhm. waaw tey du yomb Papa Ndiaye mais gis nga 2STV yi rek mën li ñu nekk en duplex ak ki nga xam ne mooy Soxna ñu nekk biir si plaza nekk si hall bi mais teewul tamit ñu ngi jokkoo ak Soxna mi ngi nii di daagu di ñëw ça c'est la 2STV yi ça c'est une équipe dynamique et déterminée macha allah nii rek lay defee saa su nekk mais soxo. soxo dafa yëngal ah, waay 2STV da koy yëngal. yaay kon dafa yëngal. yaay kon da yëngal. yaay kuy bësal fii. Eh, bu seetaanal fii. yow sàppel ñee. Eh. yow del xol fii. bësal da koy yëngal waay moom da koy yëngal. Eh, soxor da koy yëngal waay moom da koy yëngal. Papa Ndiaye da da koy yëngal. Sofia bësal fii. bësal wuy bësal fii. yaa ngi may gaañaale. di ma gaañaale. wàññi li ngeen def. mais Ndiaye. Ah. Isa soxna Dembaaw. how ah. dellu si waat naa sama sama house quoi. Ah. maa ngi sama biir instant yi bu bëtt mbow moo fi jugee léegi. waaw xale bi nga xam ni mooy toj réseaux sociaux yi ak. ay anglais la te xam nga sa naaw la réseaux sociaux la. waaw loolu dëgg la kooku du ma ko may dara sama rival la. Euh, sa rival la sama rival la. <laughs> waroon naa ko fi fekk. dafa neex dama ko fi waroon fekk man ak moom ñu jàkkaarloo. Mhm. xam nga loolu du yomb. ay jë jaay foog ngeen bàyyi mu dem. <laughs> mais ambiance bi nga dund fële ak ñoom gis dund ak ah, gars yi rappeurs yi. foofu ma nan la ko gars yi dundee foofu. jaay xam nga lan laa gëm nit ku gëm ak liggéey artiste bi nga xamante ne moo nekk ci sa biir réew te tubaar fakàl la macha allah tey ñëwoo fi ñu fi teg ñi nga xamante Amérique lañu ngay ñëw ñu wat ni ko ñun dip la ñuy dund lañ bëgg mu ngi koy yëngal ci biti tubaar fakàl la macha allah je suis tey bi ma duggee fi da ngay xam ni que ñii seen xol sedd na seen yaram tàng na Njaay ñii seen yére yaa ngi ñàkk tooy xet <laughs> Njaay odeur aquatera moo fay génn wala gis ko nii rek yomb na waaye doon koo jafe macha allah wax na lu am solo sénégalais day gëm boppam ni day gëm boppam sama papa Bécaye Mbaye wax na ko nee na gars yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di bëree ku ne xale yaa ngi daw dem bitim réew di wuti doole bu yàggee làmb ji dana fay te doomu réew mi doo dootuñu fi des waxuma la waykat waxuma la tëggkat waxuma la fecckat nan gëm suñu réew xam ne yàlla dëkkul France dëkkul Angleterre yàlla ne fépp ci àdduna bi foo nekke nag daana sa doole waaye ku nekk góor sa gëm mu ne na dem jëli ko ci jàmm soxo da ngaa wax lu am solo gëm sa bopp gëm sa métier gëm sa aar ñii dañuy jaay socc ba réussir ci jaay sooc te duñ ci am dara. dëgg la mbir yi moo kii daraja yi ak cër yi du tolloo mukk ci àdduna. yàlla moo séddale wërsëg yi séddale cër yi séddale daraja yi. dara du mën sa tolloo ci àdduna Sofia dara du sa tolloo Papa li nga wax dafa am solo et je pense que tey si Plaza ubbi na ay portam ci li nga xam ne mooy population sénégalaise ñi ngi nekk ci li nga xam ne dëgg man li nga xam ne mooy fin d'année mois de décembre. ñu ngi fi amal li nga xam ne mooy Black Friday di leen ko rappeler rek mu nekk promotion boo xam ni boutique de marque yi fi nekk yëpp dañuy kase li nga xam ne mooy seen prix maanaam dañuy soldé dëgg du neex mais di leen rappeler rek samedi incha allah am nañ fi un grand concert avec les grands rappeurs ñoom ñëpp dinañ ci ñëw ba ci Papa Ndiaye Thioumi dina fi ñëw am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni di leen fi fekk mais concert gratuit la waaye kuy ñëw ku nekk rek ñu ngi lay ñaan nga indi li nga xam ni mooy big kaye équerre wala lépp li nga xam ne mooy dem ci li nga xam ne mooy fourniture rek nga indaale ko daal di mën a dugg fekkee li nga xam ne mooy concert bi parce que si plaza dañu def ay collecte de dons macha allah sant ngërëm ñeel ñi fi romb yëpp dañu kontaane di bëggee 2STV yi dégg nañ seen wax yi rafet ak seen i ak ni ngeen bëggee yëf yi waaye loolu moo ñu fi teg ndax ki la fees loo moo la yàppaloo tubaab ku ko yónni gànnaar rek ku ko yónni France rek da nga ko delloo dëkkam waaye naar ko yónni gànnaar da nga ko yónni fi fa laa jaaree gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax Sofia ah, dama kontaan noonu lool pour dend ak yow bëggee la waaye Sophie tamit eh, soxo tamit dugg na def ay shoppingam def ay bagage am def ay fëlaaleem toog ba heure bu ko saf muy doog a gontu si moom su ma moytuwul dama koy mise à pied <laughs> soxo kontaane naa la bëggee naa la ma sœur de cœur bëggee la kon Njaay kontaan naa sama xol seddati na comme d'habitude nee naa la man damay jàkkaarloog yow ngay gën di coofe loolu daf may neen tubaat fa kàll allah euh, di remercier ki nga xamante ne mooy Sophia Thiam Thiam Babel Demba Thiam sama mag ju baax ji yow nee naa la looy dund mu may gën a neex di remercier aussi téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo jëloon seen temps di seetaan télé bu mag bi nga xamante ne mooy la 2STV yi génneewul nag lekk lenn lu ñàkk xorom lu neex lu saf rek lay génne di leen jox rande vous jeudi bii di ñëw incha allah ci seen plateau bi nga xamante ne mooy na neex di remercier waa Si Plaza waa mag tey nee naa la ñoom ñoo jaar ci maquillage bi gërëm naa leen sant naa leen ñoo ma yàq ni merci beaucoup gudd neex merci à toi la petite sœur chérie ah l'adorée la petite sœur yow nee naa kenn du yow dañoo bëggante dëgg du neex yal na yàlla laf cat si sunu diggante rek sama rek ji waaye kii nga xam ne mooy sunu góor tamit moom kenn demul mu des tubaarkàlla moom fierté la ñuy am toog ak moom parce que monument ci ci li nga xam ne mooy danse sénégalaise gàcce nga laa ma yow waaye remercier nañ leen yéen ñi nga xam ne yéen a di seetaan yéen nga xam ne yéen ay fidèle téléspectateur 2STV ah kontaanoon nañ wax dëgg yàlla di leen service saa su nekk mbégte lay doon ci ñun waaye tamit également di remercier les stars de l'ombre ñoom ñi nga xam ne ñooy les techniciens ah une jeune équipe dynamique et déterminée li ma koy faral di wax gàcce ngaalaama yéen ñu ngi leen di remercier bu baax waaye spécialement di remercier waa Si Plaza rawatina mari mi nga xam ne mooy commercial bi ñu koy remercier di leen wax rek ngeen ñëw fii am na ay immersion am na ay espace de jeu yoo xam ni daanaka doo fay dara 2000 francs la nga ñëw dund li nga xam ne mooy waa Europe moom na ñu dund muy jeu li nga xam ne mooy Vaio Games euh, réalité virtuelle mais également di leen rappeler rek concert bi nga xam ne ñu ngi koy def samedi au Sea Plaza képp ku ñëw na nga indi li nga xam ni mooy fourniture que ça soit benn bic benn cahier wala ensemble équerre wala leneen rek nga daal di ñëw participer ci li nga xam ne mooy concert bi di ngeen fi am ay acteurs euh, ay ay ay waykat yu mag a mag a mag a mag incha allah di leen jox rendez di dig daje ba lundi incha allah mais dama ne Sofia li may wax di ko wax mooy nga xam ni incha allah Issa Laye sama xarit boobu nga xamante ni Issa Laye may fompal sama oto ak sama jànk bi nga àndal nu mu tudd. sama jànk bi dinaa dinaa sama jànk bi dinaa dinaa dinaa xam ngeen ni sama mbindaan la moom daf may fobeereel kër ga moo doon fob sa tànk yi maa ngi koy kontaane commercial yeeg si waaw commercial yeeg si yeeg si yeeg si yeeg si moom mooy borom si waaw mooy responsable euh, si plaza aca soxo waaw macha allah macha allah tata ñu ngi lay nuyu di la ah. ziar gis nañ la sànq ba léegi yaa ngi jaabante ci li nga xam ne mooy événement si plaza ñu nekk ci li nga xam ne mooy fin d'année euh, ñu ngi dugg ci mois de décembre plutôt waaye ñu gis la nga yore li nga xam ne mooy commercial beeg dugg beeg génn beeg yooyu yëpp ñu bëggoon xam rek lan lañ mën a xaar ci li nga xam ne mooy si plaza ci ay événement yi nga xam ne sénégalais ñu ngi koy xaar voilà instant nii ci si plaza ñun euh, xaaruñu décembre pour commencer animation bi mm-hmm. donc euh, comme ni ñu ko gisee tey nii commencé nañu ak euh, albumu di Dindu gis bi mhm. et puis samedi dinañ am concert gratuit boo xamante ne euh, artistes yi dañuy ñëw pour woy ngir ñu mën a collecter ay fournitures scolaires Euh, yoo xam ne dañ koy may euh, ci école yi pour euh, élèves yi nga xam ne mënuñu am fourniture scolaire. idée bi fu mu jugee parce que lu mel ni Sea Plaza mu nekk centre commercial bu mag ci Sénégal boo ne centre commercial sa xel day njëkk dem ci Sea Plaza idée sociale bi fu mu jugee. voilà xam nga ñun dañu bëri ay boutique suñu biir centre bi. Mhm. donc action solidarité moo ñëw gis ñu. ne ñu comme yéen am ngeen emplacement boo xamante ne ñëpp dañ koy. fréquenté ak ampleur bi euh, euh, après tout on est le premier centre commercial. Ouais, euh, ouais, du, Sénégal. donc moo tax mu ñëw gis ma ne ma naka la ñu mënee travailler en collaboration pour que ñu mën a def justement benn action de solidarité. et comme ñu ngi en pleine année scolaire moo tax ñu ne léegi pour papa. alors tout au mois de décembre ñu ngi mën a xaar ay fête aussi plaza. voilà donc on a beaucoup de concerts concert yi nar a ñëw ci mois de décembre bi dina am ay animation dina am même tombola incha allah. donc ñu ngi demandé mais mais mais mais mais collaboration ak 2STV bi lan lan nga ci gis yow. waa 2 bi moom xam naa ne comme ñoom dañoo bëri ay programme donc dañuy jéem a sobla ci biir ci bi rek pour ànd ak yéen ngeen ñu uh-huh. àndandoo animé centre bi. ñu ngi lay bu baax. merci beaucoup man sama question mooy Sofia ci mu bëggoon laal am na fi mu laal nee na initiative bi fan la jógee tey gis nañ ni que tey euh, li nga xamante ne moom ngeen def doon na action bi nga xamante ne action bu nice la et c'est pas du tout facile euh, tey euh, place bu mel ni si Plaza def ko tey yan anam nga ci jëlee tey Euh, initiative bi fan la jóge ak exactement kan moo kan moo créé loolu voilà comme ni ma ko waxee action solidarité ñoom ñoo ñëw gis ma association boo xam ne day dund ci tout ce qui est euh, kii euh, ndimbal donc am na yeneen programme yu ñu teg en place ci année bii di ñëw incha allah donc comme ni ñu wax defoon nañ fi au début de l' année mhm. léegi dañuy ñëw pour tàmbali jeexal année bi Euh, may ay fourniture scolaire te ñu incha allah dina ñëw ak yeneen ak yeneen koor baa ngi ñëw ak yeneen incha allah waaw instant yi maa ngi woo bépp artiste parce que comme ni ma wax concert gratuit la Euh, dañuy woo bépp artiste bu ci mën a jàpp mel ni Papa Ndiaye ah mel ni Papa Ndiaye kii di ñoom euh, Dabrens ak euh, Samba Peuzzi donc di Dip Doundou Guiss du fait des vidéos Jaw Ketchup dina ñëw ak Abba No Stress incha allah ñëpp daal ñu ngi leen di woo képp ku mën a ñëw daal jàpp si kii concert bi. kon loolu ba samedi. kon loolu neex na kon loolu neex na kontaan nañ waa ah. léegi ñi ñu woowul sax nañ ñëw bokk ci artistes yi ñëw leen ndax social la ngeen bëggee waaw ñu kontaanee ak yéen doomu aadama yi ku sa téeméer wala sa 1000 francs boo yéene jënd big kaye équerre crayon lu la neex participer ci yëf yi loolu nag mooy 2STV yi ndax papa El Hadji Ndiaye ak euh, suñu yaay Marème Ndiaye loolu la ñu sant ku ñu fekk ngay def lu baax ñu ànd ak ci yow ci loolu ndax lu baax a gën a wóor gars yi lii la leen andi loon waaye bu leen jàppee mukk ndax liy ñëw mooy dàq foofu gars yi dañ leen di bëggee may leen clip restez connecté bu leen demagum maman bul dem xool leen ñu xool clip bii te ñëw xaaral ñu dem xooli clip bi te ñëw Why you don't see you long time